fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waxaala subhaanahu wa taala fa zakkir bil qur'aani man yaxaafu waid wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yaclamu fihi xayran ilaa dallana alayhi wala tariqan yu addi ila charri ilaa xasrana minhu mbokk jullit yi ginnaaw bañ sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañ ci émission bu am solo bi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy ànd ak yéen mu di émission kàddu daara yi a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم jërë ngeen jëf fa mbokk yi seetaan télévision ma faatihul Bichri ba tey ñu ngi ci émission bu am solo mu di émission kaddu daara yi gis ngeen macha allah soxna soosu nga xam ne moo doon jàng mi ngi jànge fii ci daara ji xam ne mooy daara soxna Astu Gaawaan te wax naa leen ne soxna maam Isa Mbàkke am na daara yu baree bari yu mu taxawal ba toll ci fukk ak ñeent daara ji nag daara la ci daara yi ndax ay soxna jaatulaahi rek ñoo fi nekk di jàngale alquran xam naa dañ koy jox rek mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatihul Bichri bismillah mina shaytaan rajim alhamdulilah rabbil alamin waaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Serigne Touba Mbacke muy sunu yaakaar te ak ëllëg di bu baax suñu jébbal ci Cheikh Massamba di leen nuyu nuyu jullit ak moroomam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf euh, soxna si mu mel ni kii sab liggéey moom waa télévision ma faatihul Bichri dañ cee ràññeeku lool jëmale ko ci wàllu daara ñu bëggoon a xam lan moo tax rek sa liggéey nga gën koo jëmale ci li nga xam ne moom moo di jàngale alquran. waaw soxna Jamalatu laaj nga ma laaj bu am solo li tax ma jublu ci njàngalem alxuraan mooy lépp liggéey bi soxna jaara bi rek moo ma ci xiirtal ndax bi ñu commencé de fédération maam jaaratulaa bi fekk sëñ Moustapha Bassirou yal na yàlla yokki leeram taas suñu ci barkeem mu laajoon ay turandoo maam jaara yu jëm ca daara ja ñun nag suñu list yeexee ñëw ñu dajale lu tolloog xam nga fédération bi mi ngi lëkkale téeméeri daayira ak ñaar fukk cent cinquante daayira ñu dajale woon ci lu ma téeméeri ay turandooy maam Jaara Tullaa ñëwee na wax sañ mun Muntaxa mu ne loolu dafa bari te comme daara ji dañoo ne nañ teg ab diir ba ñu fi nekk wàññeeku ñu door fee dugal ñeneen ñu laaj ko ndigal ndax mën nañ leen a jàngal mu ne waaw man mën ngeen leen a jàngal ndax lii turandooy maam Jaara lépp xajuñu poroxaan te poroxaan jàngal alxuraan xam-xam rek lañ fay def kon jox naa la ndigal nga jàngal turandoo soxna jaareetulaay yi nga yor waaye nag foo koy yëkkati na doon bànqaas ci poroxaan daara joo taxawal rek na doon bànqaas ci poroxaan ci loolu ci la njëkk ubbee daara ji ñu nekk muy daara soxna Astou Gawane biñ demee bind bataal xeb jox ñu ñu jàpp bis bu ñu war a ubbi daal mu yóbbu sëñ Abdul Akim yal na yàlla yokki leeram taas suñu ci moom moo ànd ak Serigne Cheikh mu sëñ Abdou Latif ñëw teewal fi sëñ Muntaxa ñu ubbi daara ji tàmbale di fi jàngale. di fi jàngale di fi jàngale ba mu yàgg maam jaare yi ñi inscrire wu di gën a bari comme daayira fédération bi dafa yaatu ñi inscrire wu di gën a bari di gën a bari ñuy def heure bu ñu amee ab lim rek lu mat téeméeri soxna jaare rek ñu dem ubbi fenn ci loolu ci lañ laajawaat ndigal ubbi waat quartier maam jaara daara ji ñu tuddee soxna Issa Dié waajuru ma Massamba tegaat ci daara ji nekk Thiès tuddee ko soxna ante Ndiaye Mbacke teg ci daara ji nekk Njaaram tuddee ko waajuru sëñ Saliou teg ci daara ji nekkaat fii ci Touba tuddee ko soxna Kunta mu sëriñ Fallou ak daara ja nekk fële ca Gede ñu tuddee ko soxna Aminta bu sa waajuru sëriñ Abdou Khadir Mbacke dem nañ ndànd tamit ubbi fa daara tuddee ko maam Seynabou Ndiaye waajuru maam Cheikh Rahane Fall ubbi nañ daara Louga tuddee ko maam Mahara Mbacke mu meññ askanu Mbacke bépp noonu ci lañ ko toppoo te lañ ko toppoo ba ubbi ci fukki daara ñeent su ma gisoo ti ma tiima liste bi naa mën a ekkale lim bi ndax tudd nañ soxna Faati Xaas Mbàkke tudde soxna Xadi Jeetu tudde soxna May tudde soxna Moomi yooyu lépp tudd nañ leen ay daara ak daara ji nga xam fi la góor ñi di jàng ñu tudde ko sëñ Modou Fadal Mbàkke moom fi lañ faa ber góor ñi ni fa ñu di fa jàngale ba lim bi toll na ci am na daara ji ñu tudde tamit soxna am soxna Awa Busa waajuru sëñ sëñ Fàddu ba mu nekk ci lim bi toll na ci fukki daara ak ñeent li ci jàng ci ay xale yëpp boo leen dajee mat na junni ak juróomi téeméer muy 1500 enfants ñu ngi koy jàngal ci ay xale loolu lépp nag li ñu ci poussé mooy liggéeyal Serigne Touba ak liggéey soxna Jaaratu Laahi waaw. jërëjëf soxna si macha allah am na solo. Euh, macha allah te bu ngeen gisee sax jot nañoo jaar ci benn daara boo xam ne moom la ñuy wax soxna sax euh, moom it maam jaara dem nañ fa def fi kàddu daara yi gis ngeen jàngale ma te xamuñu woon ne sax moom soxna si moom moom daara jooju bañ ca noppee lañ doog a xam ne moom moom daara jooju kon mu mel ni ki bu rafet la bu am solo waaye bëggoon nañoo xam itam mm, ma maanaam euh, li nga xam ne noonu ngay defee sa daara yi ndax dañu gis ne yaa ngi fi jël ay soxna jaara tàggat leen Euh, même bu ñu tuddul soxna jaar sax waaye yaa ngi leen di tàggal ci diine tàggal leen ci alxuraan te dañoo gis ne lu ci ëpp danga leen di jàngal ñu mokkal seen diine mokkal alxuraan ñu gis ne da nga leen di teewaat ci biir daara ji ñuy jàngalewaat ci biir daara ji loolu nekk loolu loo xam ne ni daanaka projet la boo xam ne mi ngi jëriñ société bi. mu ngi jariñ société bi bu baax loolu moo Serigne Touba rek moo ko mën a am ndax tey boo xoolee maam jaar yi fii jàngale yëpp ñu ngi jóge Poroxaan ni ma ko sëñ Mountakha waxee woon ni mën a doon bànqaas ci Poroxaan yow dem nga déglu nga maam jaara yooyu soo dégluwaatee ñi nekk fi njàngale mi benn lay doon benn méthode bi lay doon loolu nag xam nga ne baatinu soxna jaara la rek ndax maam jaara yi jóge Porokhane tey ku ci mel ne maam jaara lay mii ma jàkkaar lool jàngal ne ay nit bañ mokkal ci biir daara ji ñuy jàngalewaat ci biir daara ji waaw kenn nga ne nday nduur me fi la mokkal te mu ngi fi jàngale waaw loolu lépp nag baatinu soxna jaara la rek waaw moo waral la bëggoon nañoo xam ndax soxna maam Issa dafa am ay partenaires yu koy jàppale ndax ay junni junni doomu aadama ku leen topp di leen yar di leen tàggatee leen ci daara wax dëgg yàlla dañuy soxlawoo ay ndimbal yu baree bare ndax dafa am lu nekk sa ginnaaw di la jàppale. déedéet xanaa yaakaar yàlla ak sëriñ Touba rek ndax man awma benn mosuma benn partenaire bu ma jàppale ci fukki daara ak ñeent yi maanaam dërëmu kenn mosu cee dugg lu taalubee sëriñ Touba yu baax yi. seen weccet yu barkeel yi ñuy def joxe daal ñoom ñoo taxawal daara ji bañ egsi fii waaye nag li ñuy def état lañ koy defal ndax état bëggul xale bu jàngut bëggul xale buy taxawaalu kon ñoom ne war nañ cee mën a dugal seen loxo bu ñu ci jàppale ñu ci ndax uh, wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla baax waaye soxla nañ ay ndimbal ndax xale bu jigéen yor ko dafa metti surtout rawatina na xale buy internat nga xam ne yaa yor dundam yor koddaayam yor ñu koy toppatoo ay wàllu santé mag yooyu yëpp suñu ci jàppale dinañ ci waaye ñoo ngi sant Sëñ Tuubaa bu baax nag waa ndax wax dëgg yàlla gisaguñ ku ñuy jàppale waaye ñoo ngi dox bu baax. jërëjëf euh, soxna maam Issa Mbacke Euhlou kafe bëggoon nañoo xam soxna maam Issa fan la jëm ay projet am fu jëm ci wàllu daara. Euh, ci wàllu daara xanaa fi daara yu mag yi jëm rek ndax ñun daara ji boo xoolee matière yëpp lañ fiy jàngale ñu fiy jàngale sax français di fi jàngale ay xam-xam téere Serigne tubaay yi xeeti xam-xam yëpp dañ leen fiy jàngal di leen fi jàngal liggéeyu jigéen soxna Rama nga ne moom sama doom la moo fi ne mooy former xale yi di leen jàngal nu ñuy mooñe di leen jàngal fóot di leen jàngal togg di leen jàngal nu ñuy nekk ci seen kër seen néegu sëy loolu lépp dañ leen koy jàngal ci daara ji kon ñun fi ñu bëgg a jëm mooy fi daara yi mag yi jëm foofu lañ jëm waaw. dafa am lu am solo loo xam ne tey télévision ma faatihul Bichri fekkee na ko mu nekk kaamil boo xam ne ay jigéen rek ñoo fi nekk di ko wàccee ma ñëw laaj la ñi lan la ñuy def ndax dañuy jàng nga ne ma dafa am ku jugee ci daara ji di bëgg sëy moom la ñuy wàcceel kaamil ngir gunge ko ko loolu nekk loo xam ne lu am solo ma bëgg nga leeral ko téléspectateurs yi. waaw kooku maam Jaara Sëli la tudd moom tamit ko fi yàgg la moom sax moo nekkoon directrice su daara ji moo daan fayeeku di fay xale yi moom poroxaan la jànge woon mokkal ñëw ñu jël ko daanaka soxna jaare yi fu njëkk a jàngale moom ñu ko fi jiitu bariwut moom mooy waajal sëy ni këram ñu doon wàcce kaamil di ko ñaanal boole ko war a fas yéene ànd moom nag buñ demee ba di ko waral maam jaare yi wër ko ñu jàngal ko ñeent fukki yaasin jàngal ko ay xasida gunge ko ba ci néegam jàngalaat fa ñeent fukki yaasin dalal ko fa ci jàmm waaye lenn xeeti pukkare nag du fa am moom waaw looloo taxoon ngeen fekkoon ñu doon wàcce kaamil boobu waaw ban yéeg yëg ngay am ci xale yi nga xam ne ay tuut tànk lañ xamuñu dara amuñu bàkkaar jàng alxuraan ba toll nii nga toog ci biir daara ji rek ñu wér la lan ban yéeg yëg nga ciy am. loolu daal li ma gën a neex ci sama àdduna mooy toog fii ci daara ji déglu xale yi ñuy jàng alxuraan ndax yàlla dafa mën a nattu nit di ko nattu. boo gisee ma jooy jooy yi jooy mbégte rek ndax tey li ma gën a neex sama àdduna moom laa def fu ma mën di nekk ci àdduna ak fuñ ma mën di gis may liggéeyal sëñ Tuubaa toog fii ci daara ji xale yi wër ma may may déglu alxuraan moom ma ko gën gënal looloo tax ma cooy da ngeen ma defloo tey li ma gën a neex sama àdduna waaw wax dëgg yàlla lii daw na yaram macha allah gis ngeen ay tuut tànk rek ñoo fi nekk mokkal alquran ba jàngal ko ay nit ñu mokkal alquran gis ngeen yéeg yëg bi nga xam ne soxna maam Isa moom la am ci tuut tànk yi nga xam ne mokkal nañ alquran te mu nekk loo xam ne lu dëggu ci moom ndax du ñu tàqalikook moom saa su nekk ñu ngi koy topp ci lépp lu muy doon te fu ñu mën di taxaw tamit ñun dañuy wax ne moom mooy suñu idole moom mooy suñu roykaay ndax gis ngeen daaw suñu bésu alxuraan ba nga xam ne moom lañ gën a fonk ci àdduna sax moom lañ ko tuddee te li ko waral loon rek mooy bëgg gi nga xam ne bëgg na ko alxuraan ba pare di ci bay waaram xam naa comme xolam tooy na mi ngi jooy dañ koy bàyyi mu dal rek ñu dem ci ndongo yi ñu taril ñu alxuraan incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan émission kàddu daara yi ci daara ji nga xam ne moom mooy daara soxna astu gaawaan bu soxna maam isa mbàkke ahlu café mu mel ni ki ñu ngi toog ak koo xam ne leer la ci moom mu di soxna rama xam naa dañ koy bàyyi rek mu nuyoo aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen ziar bu baax yéen waa TV di am mbégte ci ñëw gi ngeen ñëw fii mhm. Eh, jërëjëf eh, soxna Rama macha allah bu ngeen gisee xam ngeen ne jëmm ji xàmmee ngeen ko ci Lamp Fall moom it jàmbaar la di fa def lu am solo waaye xam naa dañ koy laaj rek ban yëg-yëg la am ci taxaw ci daara ji ginnaaw bi ko soxna si mooy waaye juróom waaye daf koo jàngal teg ko ci yoonu jub jàngal ko alxuraan muy jàngalewaat ci daara ji ban yëg-yëg la ci am. Ah, xanaa sant suñu borom subhaanahu wa taala rek ndax suñu borom moom lépp lu am ci àdduna moo ko dogal lépp lu xew fu mu xewee ak nu mu xewee. bi an mi rabbina wa bi iraadati ci xamuk suñ boroom la ak nammeelam dëgg la nag doomu aadama dina def dara waaye bu seetee ba ci biir lépp ci suñu boroom lay dellu rek ndax doomu aadama moom lépp lu mu def buñ ko xoolee lu ci yàlla participer suñ ko ci génnee moom du ci dese dara kon wér gi ak kàttan gi lépp ci suñu borom rek lay delluwaat subhaana wa bu nga fi nekkee léegi ñaata doomu aadama ñoo mokkal alxuraan. bari nañ nag am na ñoo xam ne mokkal nañ ba sëyi dem dem seen kër am ñoo xam mokkal nañ waaye ay gone lañ ñu ngi ci biir daara gi di jàng xam-xam waaye toll na ci fukk ak lu topp ñi wàcc tamit moom bari nañ lool ñi wàcc nga xam ne wàcc nañ alxuraan te mokkalaguñ moom bari na lool waaw waaye li mu fi mokkalee moom toll na ci fukk ak nangam waaw. Euh, programme daara ji naka lay demee ci wàllu ndax alxuraan kese lañ fi jàng wala ñu ngi jàng yeneen matières yi ak yan waxtu lañ koy jàng. waaw dañuy ñu ngi jàng alxuraanu karim ndax alxuraanu karim moom mënut a ñàkk ci dunduk jullit bi ndax jaamu yàlla gu mën a doon alxuraanu karim mënu caa ñàkk lépp ci lépp nag ñu ngi ko fiy jàng comme ni ko daara yëpp di jàngee di fi jàng xam-xam. téere sëñ Touba yi dañuy jàng lu mel ne tasawadu zixaar xam ne képp kuy jàng xam-xam ci ngay tàmbalee. ndax ju xadaa il haaj nafis ma naweru sudur téere sëñ Tuubaa yëpp ñu ngi ko fiy jàngale waaye ñi jàng xam-xam mooy ñi nga xam ne dem nañ ba mokkal ndax jàngam alxuraan dafa fiir ndax xale bi su fekkee commencé naa di jàng xam-xam di ko booleeg alxuraan bi mën naa dem ba nangu jàng alxuraan bi moo te dañu bàyyi ba xale bi mokkal ñu doog ko jàngal alxuraan waaye nag terewul li nga xam ne ay faraidul ayni la li nga xam nit ki mënu ko ñàkk bañ a xam te kenn mënu koo defaaleel kenn muy xam sa faratay jëmm lu mel ne julli ak nu ñuy jàppoo ak nu ñuy woore ak nu ñuy sangoo farata rawatina jigéen ndax jigéen tamit dafa gaaw a màgg da yor jigéen mu am 16 ans rek dal di commencé gis yëfi jigéen bu bu ko defee li koy war mooy mu mën a xam ni muy sangoo farata ndax bu noppee mën a ñëwaat ci dima laalaat alxuraan diñ leen ko xamal bu ñuy doogal daal jàngal leen faratay jàpp faratay julli su ne jàpp su ne julli sangu ni ñuy sangoo farata ak la ci aju lépp dañ leen ko jàngal waaye nag ci olof lañ leen koy jàngal ndax dafa am téere sëñ Touba yoo xam ne euh, borom xam-xam dañ ko way ci olof ku ci mel ne Serigne Khalil Mbacke Serigne Moustapha Habsa ñu ngi koy ziar bu baax benn téere bu tudd làmp Mouride am na première ak deuxième boobu lañuy jël euh, di ko jàngal xale yi. ci olof nga xam ne fiq sax boo dee seet jàng ko ci olof moom moo gën su fekkee yow doomi olof nga ndax ci nga koy gën a dégg waaye nag su fekkee ne alxuraan ngay jàng nii moom jàng fiq jàngee ko ci ci saw làkk ba xam ko ba maîtriser ko moom moom moo ëpp solo daal noonu la ñuy def deen ko jàngal ci ci olof ba xam ne dinañ ko dégg mokkal ko tey ji gone goo ci woon ne ko fàttee jàpp ñaata la mun la juróom-ñett su ne jàpp ñaata la mun a juróom-ñett fàttee julli ñaata la mun def ko juróom noonu lañ koy jàngale léegi nag ñi nga xam ne mokkal nañ moom ñi ngi jàng xam-xam tàmbale ca doon di xaar waaye terewul nag ñi mokkal xanaa jàng nañ la am murit ba tari ko première bi ak deuxième bi waaw nga xam ne jigéen tamit war naa mën a xam loolu lépp ndax dañu ne fekk genn wàll euh, fekk buñ ko xaajoon ñaari xaaj benn wàll bi góor ak jigéen ñoo ko bokk benn wàll bi jigéen kese ko moom kon jigéen ko war a jàng la. ku war a xam la comme que genn wàllu fiq bokk ko góor benn wàllu fiq bi jigéen ak góor a ko bokk kon jigéen moo ëppale ci am njàng xam-xam kon jigéen ku war a jàng la rawatina laab ndax ñi nga xam ne dañuy yor ay doom sax di nàmpal ak ñu farluwul lool lool lool seenug laab dina jafe kon jigéen rawat li mu war a jàng laab moo ci war a jiitu ci ak jàmm yàllaam ndax jigéen moom li muy soxla woon laab dafa bari lool kon fiq dañ ko war a jàngal jigéen ñi ba nga xamante ne bii dinañ ko mën a xam bu baax a baax a baax ja xam ko ba noppee nag di ko jëfe ndax xam moom dafa war a ànd ak jafe comme ni suñ sëñ baa waxee xam ak jafe xam-xam moo lay fàggul ak mat kon kon jigéen yi nañ leen jàngal seen diine di fexe ñu di ko jafe loolu de suñu ko amee ëllëg su société bi de mën naa jag ki képp am sa doom jàngal ko yar ba mu tàmbali di ko jëfee ba nga jëmet jëmbat ci moom ak ragal yàlla su weetee ak su weetalikoo kooku su ëllëgee dina nopp dina noppalu dana la noppal tamit ëllëg bu da dajeek suñu borom tamit wàccoo nga am moom kon jigéen daal dañ ko war a yar ci diine lislaam ndax solution wu àdduna moom mooy diine lislaam lu àdduna bi jaxasoo jaxasoo solution am na soxna jaara solution àdduna la sëriñ Tuubaa solution àdduna la diine lislaam solution àdduna la waaye nag liñ leen di xamalee ñeneen ay Rihanna ay footballkat yi ñooñu bañ xam seeni tur ñu leen xamaloon soxna jaara nam nekkee woon te leen koo xamal ca bañ gone dinañ ko xam ndax gone moom li jiitu ci moom rek moom moo fay des Mm-hmm. Uh, jërëjëf uh, soxna si macha allah wax nga lépp tey daanaka tënku na te itam am na solo mag ñeeg ndaw ñi yëpp mën nañ cee jàng mu mel ni kii uh, lii day wane ne rek yor daara lu am solo la rawatina jigéen ba nga xamee ne soxna si sam def na ci yitte ndax mu mel ni kii moom dafa dégg ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi jox joxoon mu di rabbi asxaabaka bi himma wala turabihim darsa faxat mu mel ni kii himma jooju moom la jël rek yóbbu ko ci daara def ci yitte lool macha allah ma maanaam naka nga gisee sa mu nekk sa waajur di def lu mel ni maanaam yow euh, yan xalaat wala yan yéene wala yan projet nga am ci liggéey bi nga xam ne moom lay liggéeyal Serigne Touba. waaw soxna si den ñi ngi ko gisee xanaa jàmbaar la lool ginnaaw dogalub suñu boroom comme ni ko waxee woon lépp lu am ci àdduna suñu borom ko dogal waaye nag am na Pastef boo xamante ne bi mi ngi ci moom nga xam ne ak way moom dafa am solo ndax lu waay way am ca way waaye lu waay cof lu wadd sëñ Tuubaa waxoon ne yitteem mooy yattu bunt kon nit ki lépp lu mu nekk da cay way waaye ak way moom gis nañ ko ci moom bu baax a baax te lépp lu mu jàpp tamit day dem rek waaye moom du dellu ginnaaw moom loolu moom gis nañ ko ci bu baax a baax nekk bu nekk suñu suñu waajur nag nit ki euh, li sëñ Mouhamadou Rafa Mbacké di wax rek am na yoo xam ne nit ki doonu ca dara fa fa ngay juddoog ña lay jur moom yow doonoo ca dara lépp ci dogalub suñu borom la waaye sant nañ suñu borom subhaanahu wa taala bi mu ñu wàccee ñu feeñe ñu feeñe jamono ci moom loolu moom sant nañ suñu borom bu baax a baax waaye nag jàmbaar la lool te tamit ma liggéeyam bii muy liggéey suñu Tuubaa moo ko gën a lekk gënal ko naan gënal ko solu gënal ko ak njabootam gënal ko léppam waaw fu mu toll moom lay waxtaanee bu dee woowuy téléphone ci yooyu ci yooyu lay wax bu jógee di dem ci yooyu lay dem bu dee nelaw sax yeewoo sax bu buy wax lim gént ci ci ci ci maanaam ci yooyu lay ci yooyu rek lay lay jëm ay daayira ak ay ay daara ay ay ay cant yooyu daal moom moo moom moo nekk euh, yitteem daal moo ne ci yitteem boo gisee poroxaan nag taxawaay bu am solo bi mu fay def waaw loolu lépp daal ñu ngi koy gis gis nañ ko ci ak way te nag lépp lu waay nekk moom boo ca wayee rek incha allahu rabbi di ca am aw way ndax maanaam comme Sëñ Tuubaa mi ngi koy misaal ci nax ju xadaa il xaaj mu ngi wax naan boo gisee ab teen euh, buum ga na mu ca yàgg a jaar di ca jaar di ca jaar su yàggee day dem ba am fa ab ab buntu yoon woo xam ne foofu lay dëkk ngir yàgg gaay jaar kon lépp lu waay jàpp bañ a dellu ginnaaw moom soobee yàlla di nga ci am di nga ci am ndam. Mhm. jërëjëf euh, soxna Rama Diène macha am na solo te itam wax ji tënku na waaye am na solo macha allah xam naa dañ koy bàyyi rek mu daal di ñuy wool ñenn ci ndongo yi rek su ko defee ñu daal di tari alquran ñu barkeeloo ko. audu billahi mina shaytaani rajim lillahi wa rasulihi wa وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تنقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم يكتب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 أخذتم عند الله عهدا عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده وأم تقولون على الله ما لا ما لا تعلمون صدق الله العظيم Euh, jërëjëf euh, euh, mbokki télévision ma faatihul Bichri macha allah soxna Rama ginnaaw xale yi bi ñu tarilee alquran ñu bëggoon a xam maanaam ban yéeg-yéeg nga ci am ci jàngal gi nga xam ne jàngal leen ñu toog àddina si yëpp ñu leen di seetaan ñuy tari alquran ak alquran bi ni mu neexee ak tajwid bi ni mu amee solo maxaarijul xuróof yi ni ñu koy génnee mu am solo lool. waaw xam nga boo gisee loolu nga xam ne lépp liggéey bu sëñ Moustapha Bachirou la. ndax ñoom it ñu leen jàngal poroxaan lañ jàngee ba mokkal ba bind ñu jëlaat leen ci daara ji ñuy jàngale ñoom jàngalekat yi damay faral di leen wax ne su ngeen nekkee ci daara ji na ngeen yor comportement soxna jaara yor paste foofu Serigne Moustapha Bachir ñaar ñooñu na ngeen leen teg ci seen kanam ndax Serigne Moustapha Bachir ba mu leen di jàngal aw jiwu la bëggoon te olof Ndiaye daan lu jiwu wa jeexul jugu fa ngeen xam ne jàngalu leen mu yem ci yéen kese ndax ñi ne ci ab safaan sax dañuy wut ñu ñu xëcc indi leen ca lu sa safaan bañ ne kon yéen ñi ne ci lu ngeen ci lu baax di alxuraanu karim képp ku ngeen mën a jàngal ba mokkal na ngeen ko def te yàlla tax ndax fayeku àdduna moom amut solo ab jullit dafa war di xemmeem ëllëg di xalaat ëllëg waaye bu mu xool rek fayuk tey ndax luñ la mën a fay ëllëg day jeex kon si Moustapha Bachir li lépp ab liggéeyam la ñu ngi koy sant bu baax a baax yal na yàlla yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem su xale bi doon jàng léegi euh, wa ma nut bi boo gisee suñu borom mi wax ne yaa nisaa an nabi ilastunna ka ahadim mina nisaa yéen jigéen jullit yi bokk leen nag yeneen jigéen yi du ngeen n'importe quel jigéen kon jigéen dafa war a xam boppam te ragal yàlla nit ñi damay dégg faral dégg ñu naan dangay ngay gëm sa bopp déedéet da ngay xam sa bopp ba noppi ragal yàlla nit ki soo xamee sa bopp doo fotowu di sol loo xam ne baaxul di ko dugal ci réseaux sociaux yi nga xam ne moo xew jamono yi ku nekk a ngi ciy wax te nag di jël ay photo yoo xam ne li ngay sol dafa gàtt di ko dugal ci ay euh, WhatsApp ak Facebook ak yooyu mën naa nekk ni tey nga nekk gone waaye ëllëg mën nga am say doom ñu nekk tekki dara ci réew mi ñu gis ko ñun kii moo nekkoon yaay diw su boobaa di nga rus ndax ëllëg du añ du reer waaye lu mat sedd la kon nañu xam suñu bopp te ragal yàlla ndax nit ko su ragalee yàlla su wetee ak su wéetalikoo lu bari dina ko jomba def ndax suñu borom ba wax naan euh, innama yuridullah li yudhiba ankum rijza ahlal bayt wa yutahhirakum tathira bam la waxee nga toog sa kër di muuru di julli euh, di topp yonente bi di natt azaka lu mu ca teg damaa bëgg ëllëg ma laabal la laabal la ba nga laab bu ne ëllëg kii mooy yaay diw ñu ne duñ ne acam kon jigéen na xam boppam te jigéen bu xamee boppam te muñ lu baree bari ñàkk muñ moo koy waral ndax boo tollee ci wala am borom kër jàpp na yow boo simee ko photo doo ko ci Facebook bi moo lay may jëkkër moo lay may borom kër déedéet borom kër saa su ko soñ boom dogalee nga war koo am di ko am waaye nag jigéen ñi moom yaa nisa nabi lastu naka ahadin mina nisa jigéen jullit yi bokk ñook yeneen jigéen yi nañu xam suñu bopp bu baax a baax a baax a baax ndax suñu borom lépp lu ñu digal suñ ko xamee ak suñ ko xamul suñu njariñ la lépp lu ñu tere suñ ko xamee ak suñ ko xamul lu ñuy lor la kon jëfe ndigal yàlla yi njariñ lépp ci ñun lay dellu dellusiwaat bàyyi tere yi lor yëpp maanaam dinañu di waaw dinañu ko wattuloo kon maanaam nañu gën a xamaat suñu bopp rek loolu daal moom moo am solo ci ci ci àdduna bi xamaat suñu bopp di topp suñu borom subhanahu wa taala di jaamu yàlla di julli ndax julli tamit ñun jigéen ñi dañ koy sàggane waaye lu am solo la ndax suñu borom moo wax ne inna solaata tanha ani day teree def aw ñaawteef tey jii boo bëggoon fekkee yaa ngi saxal julli saxal ko di julli soo bëggoon def aw ñaawteef sax mën nga koo fàtte wala nga bañ koo def pare di muñ mu ni istaxinu bi sabri wa salaat de bu ngeen dimbalikoo dinañ dimbalikoo muñ ak julli ndax boo dee julli mbir yi dina jàppane ci yow waaye boo dee muñ euh, dina tax bu ñëwee dina oyof oyof ci yow moo tax ma bu ngeen wut ndimbal wut leen dee dimbalikoo julli ak muñ te àdduna muñ sax nag da cee mënta ñàkk képp ku dëdmal àdduna moo moo gëm moo xam nga bëgg àggat suñu borom moo xam àdduna kese nga bëgg faaw ngay muñ ndax euh, muñ mooy ngànnaay li nga xam ne soo ko yoree doo son te muñ dara du ci mucc bis bu set dañuy soxlawoo muñ boo nekkee ci lu neex muñal boo nekkee ci lu naqari muñal ñun jigéen yii ñuy def yëpp ñàkk muñ la rek buñ buñ buñ muñee te bañ a yàkkamti incha allahu rabbi lépp dina ñëw ndax ku ne lee sañ borom dogal ne moom war a am. ak moom nga war a euh, ñàkk incha allahu rabbi saa su jotee rek dina ñëw kon euh, euh, waxar na fee bu yotu kon nañ toog suñu biir kër yi te muñu rek ndax suñ tubaa danee kër gi ku yóbbu yar bi bàyyi woo fi dara ko fi bàyyi yóbbu woo dara kon boo jëloon or ba na ca kër ga ak xaalis baak yóbbu oto oto bu rafet ba te ba fa yar ba yóbbu woo dara waaye nag soo fa jëlee yar ba bàyyeetoo dara ca kër ga nañu yar njaboot gi ci muñ ak doyloo li ñu am waaw salaamaaleykum macha allah jërëjëf soxna Rama tey moom xam naa ne spécial kàddu daara yi moom ngeen am xam naa tey soxna yi bég nañ lool lool lool rawatina waa Canada waa Brésil waa Italie macha allah tey ñu ngi teewlu émission kàddu daara yi ndax ñoo ñu ko gën a bëgg rawatina soxna si tey ñu dalal mu di soxna maam Issa Mbacké wax dëgg yàlla tey waa France kontaan nañ lool lool lool waaye ñoo leen gën a bég nday mu ndax moom day kenn ci ñun day kenn ci émission kàddu waaye day kenn ci émission ci kon mu mel ni dañuy jox soxna si toog rek mu daal di ñuy waxal uh, faratay njàpp walla uh, faratay julli su ko defee ñu daal di dellu si ci soxna si daal di tëj émission bi. aouzu billahi mina shaytaan faratay julli fukk juróom la bis njëkk mooy yéene ñaareel ba mooy kabaaru xarmal ñetteel ba mooy taxaw gi ngay taxaw di ko kabaar ñeenteel ba mooy jàng faatixa juróomeel ba mooy taxaw gi ngay taxaw di ko jàng juróom benneel ba mooy ruko juróom ñaareel ba mooy sigg ci ruko juróom ñetteel ba mooy sujoot juróom ñeenteel ba mooy sigg ci sujoot fukkeel ba mooy yéenee roy ci imaam fukk ak benneel ba mooy toftale julli gi fukk ak ñaareel ba mooy dal ci biir julli gi fukk ak ñetteel ba mooy yemoo fukk ak ñeenteel ba mooy wax asalaamaaleykum fukk ak juróomeel ba mooy togg gi ngay toog di ko wax julli fukk ak juróom-ñett la bis njëkk mooy liqaam bu dee ñaareel ba mooy jàng aw ñetteel ba mooy taxaw gi ngay taxaw di ko jàng ñeenteel ba mooy béral juróomeel ba mooy yellu ci barab bu ñu war a yelloo juróom-benneel ba mooy kàbbaar bu dul kàbbaar bu njëkk bi juróom-ñaareel ba mooy taay gu njëkk gi juróom-ñetteel ba mooy taay bu mujj bi juróom-ñeenteel ba mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa fukkeel ba mooy toogaayu jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukk ak benneel ba mooy toogaayu taay bu njëkk gi fukk ñaareel ba mooy toogaayu taay bu mujj bi fukk ñetteel ba mooy gën a dolli sag dal fukk ñeenteel ba mooy beral salmal ba ki nga dendeel di ko dégg fukk ak juróomeel ba mooy wax asalaamaaleykum sab imaam fukk ak juróom benneel ba mooy wax asalaamaaleykum ba ki nga dendeel sa wetu càmmoñ fukk ak juróom ñaareel ba may noppi tey déglu sab imaam bu dee beral fukk juróom ñetteel ba mooy chatti yi wala imaam wala kenn kuy julli su fekkee dañ lay jiite imaam mooy doon sa chatti yaa allahu yaa allah yaa allahu yaa allah sargal naa la yow sama yaay. sargal naa la yow sama yaay. jàmmu jumat. jàmmu jumat. yaak sama baay. yaak sama baay. ñaanal naa la yow yaay booy.

fukkeel ba ñëw xaw la gaañ ba ñëw xaw la gaañ yaay yama nampal ñaari at yaay ci di te te yaay booy teg ci di yaay muso bëgg man ma xiif yaay muso bëgg man ma xiif suma feebare nga jaaxle lool coono juddu baa gën a tiis yaay jàmmu jumat jàmmu jumat yak sama baay yak sama baay ñaanal naa baay booy naa la yow baay Bayyama yarba matolli man. Bayyama yarba man. Teg ci di ma faj suma feebare. Teg ma faj sama diine. teg ci di ma jàngal alquran. teg ci di ma jàngal alquran. jàmm jumaat. jàmm jumaat. yaak sama baay. yaak sama baay. ñaanal naa la yow bay booy. ñaanal naa la yow. ñaanal naa la ngeen jëf mbokk yi macha allah gis ngeen daara jaa ngi noonu li fi jot jaar yëpp ci xale yi nga xam ne tare nañ alquran macha allah mu nekk tali boo xam ne bu leer la te set dégg ngeen ko itam ci wàllu farata yi nga xam ne fardul ayni la comme ni ko soxna ma faram fàccee moom tamit macha allah yal na yàlla barkeel ko ci xam-xam bi ndax tey joxe jote na fi xam-xam boo xam ne daanaka émission boppam la waroon a doon waaye dañ koy topp rek incha allah di ko ñaan rek ndax ñu ngi bëgg a def ak moom subul salaam bu yaatoo yaatu ndax euh, moom nit la koo xam ne wala kenn la koo xam ne wala jigéen la koo xam ne mi ngi bay waaram moom it ci lislaam ndax lim fi wax lépp réew mi daf koo soxla kon ñu ngi koy yàlla barkeel ko lépp lu mu fi jàngale ci wàllu xam-xam rek yàlla na ko yàlla barkeel barkeel itam li nga xam ne moo nekk ci moom mu di dënnam mu di alquran bi waaye di ñaanal bu baax a baax way juróom wu tedd nga xam ne mu di soxna maam Isa Mbàkke moo ko euh, defal loolu ndax euh, lii mooy li nga xam ne moo gën a foor ci diggante doom ak way jur muy xàq bi nga xam ne way jur daf ko yoral doom mu def ko ci moom ba mu mat sëkk kon yàlla na yàlla barkeel ko waaye dañ koy yi nga xam ne moom lay dund ci daara ji ndax euh, daara ak jafe-jafe ñoom ñoo ànd ndax nit a ngi seetaan télévision ma faatuhul Bichri bëgg a yëkkati alalam def ko ci biir daara ji ana fan lay jaar yan jafe-jafe lay dund yoo xam ne nit ñi seetaan mën nañ ko cee jàppale. waaw soxna Jamalatu jafe-jafe dund mooy yi ma la waxoon léegi rek ndax xam nga ne daara lu metti la adduna booy xool ni jàngalkati alxuraan ñoo fi gën a ñoo fi gën a sonn waaye loolu lépp nag li ñuy def dafa baax te lu baax yombut waaye yor xale bu jigéen dafa metti di ko jàngal di ko toppatoo wàllu lekkam wàllu naanam fa muy tëdd ak ñi leen di sànq ñi leen di lett seen wàllu santé loolu lépp ak gardien yi leen di garde ñi leen di garde guddi bu ñuy nelaw ak ñiy fanaan ci mbedd mi di garde daara ji loolu lépp ay jafe-jafe la ak dund bi loolu bari na ci luñ ciy jànkonteel tamit soxla nañ ci ay ndimbal lool voilà Eh, jërëjëf eh, soxna si kon dégg ngeen ni mu ko waxee ku wax daara wax jafe-jafe waaye comme gannaaw daara ji dafa am internat am externat te daara ji ay daara la doon na ci fukki daara ak ñeent te lépp moo tegu ci loxoom bi mu yor leen macha allah te itam ñi ciy fay bariwul ndax eh, mu mel ni kii wàllu social bi moom moo fi ëpp ñi nga xam ne dañoo néew doole te mu xam ne lii kat waree fam la ndax fardul kifaaya la te moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooñ la yàlla cërale ngir mu leen alquran ba tax mu jël doomi jullit yi dajale leen fii seen i waajur seen loxo jotul seen gannaaw waaye moom li ko war rek ma nga ca mooy di leen jàngal alquran tàggal leen teg leen ci diine kon mu mel ni ki daara ji nga xam ne fa la jigéen ñi nekk rek moom lañ leen wat waaye euh, wax dëgg yàlla fi ñu toog am na daara ju mu jàkkaar góor ñi itam fa lañ nekk waaye xam ngeen nañu lu ñu yitteel rek mooy jigéen ñi ba tax ñun tamit ñu tànn daara ji nga xam ne ca la soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso yi nekk ñu daal di fay dem kon mu mel ni ki dañ koy bàyyi rek mu joxe numéro bi nga xam ne mooy numéro daara ji direct képp koo xam ne yor nga sa doom bëgg ko fi andi wala nga yor lépp loo xam ne rek yaa ngi koy def ci yoonu yàlla ngir mu jëriñ la àdduna ak àllaaxira rek su ko defee nga mën a jaar ci numéro boobu. waaw am nañ numéro Rama mi nga xam ne moo nekk ci daara ji mooy directrice daara ji Rama Diène 420 77 423 11 80 amaat na beneen numéro tamit 77 509 85 52 amaat nañ beneen numéro tamit 177 141 90 17 yaakaar naa numéro yooyu ku ci jaar ak numéro Cheikh Abdou Lahad Dieye mi nga xam ne coordinateur moom it 77 874 39 00 numéro yooyu ku ci woote di nga mën a jot Daara ji Euh, jërëjëf kon numéro yooyu di daw ci suuf mooy numéro yi nga xam ne mooy numéro daara ji képp ku ci jaar na nga jot soxna Rama mbaa nga jot koo xam ne mi ngi ci biir daara ji lépp lu waaye di joxe itam te mu jëm ci daara boo ko joxee ci daara ji yàlla dina la fay ndax fi yàlla kese fi nekk ay tuut tànk rek ñoo fi nekk ba pare doon jigéen nekk ci biir lislaam waaye nekk itam ci biir alquran ndax mu mel ni kii fekk nañ léegi ay tuut tànk yoo xam ne ay jigéen lañ mataguñ sax dem seen kër ñu fekk leen ñuy wàcce kaamil loolu daw na yaram tool yoo xam ne ñu nit ñuy mokkal alquran mu nekk loo xam ne loo am solo la kon xam naa dañ koy jox rek mu tàggook mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision ma faatihul Bichri maa ngi sant bu baax rek di fàttali rek ne ñu góorgóorlu bu baax ci ndigali sëriñ bi ba seen jëfe ndigal sëriñ bi tam moytu ay tereem rek te war góor warit jigéen ndax ab murit yombut ndax bala nga doon murit da ngay njëkk a doon jullit door doon murit te ab jullit yi ñu ko tere bari lool yi ñu ko santit bari lool ab taalibe tamit dañ ko digal mu sellal ay jëfam sellal ay waxam sellal ay pas-pasam loolu nag mooy taalibe te ci lañu Sëriñ Tuubaa woo ñu fas yéene ko cee wuyu moo tax alxuraan ne wa maa umiru illaa li yaxbudullaaha sant ñu leen lu dul ngeen di jaamu yàlla muxlisina lahu diinahum hunafa sant ñu leen lu dul ngeen di sellal kon nañ góorgóorlu bu baax fas doon ay murit saadix takkutoo topp ci ginnaaw kilifa yi bi sàmme wa di déglu ndigal te yéene koo jëfe loolu rek moo waraloon jataay bi tey ak jataay ba ko jiitu ab murit nag dafa war a mel ni ak ëkk ak ëkk nag taw di ko yóbbu ngelaw du ko yóbbu fa mu nekk rek leen te loolu nag pas-pas bu rëy moo koy may ndax sëriñ Tuubaa yëngu-yëngu àdduna lu masaa bare bare mosu caa xool mosu caa gestu dafa ne woon dann boroomam rek ba am li mu am bokk na ci sunu maam ya toppoon mën nañ cee tudd kenn du Cheikh Moussa Mbacké di taalibeem di rakkam bokk na ci ak taalibeem dëkk gi mu dëkkoon fii ci mbal bëggoon a jege jumaa ji ba mën a jege eh, bu xëyee taxaw liggéey bi moo taxoon mu dëkk fa loolu nag moo di taalibe loolu laay dénk sama bopp di leen ko dénk di ñaanal jullit yëpp yi ñuy seetaan rawati nag waa États-Unis Amérique di ñaanal sëñ ma jama bi nga xam ne mooy kilifa kër gi te nekk foofee jàkkaarloog ñun di sant Serigne Lo ma nga xam moo jiite daayira fédération bi nekk New York comme ICA ñoo ngi leen di sant ñëpp ak soxna Momi Sène ma nga xam moo jiite daayira maam Diarra ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di ñaanal télévision mu fàttali bisri dimension bi nga xam moom la mu fàttali bis am ci xasida yan nañ ko am ci biir télé ci barke Serigne Touba euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp di wàcce fii suñuy kàddu di wax wa axiru daxawaana alhamdulilah rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah kon ñu ngi woon fii ci eh, Touba Xayra eh, eh, ci daara ji nga xam ne moom lañ tuddee soxna Asto Gaawaan di daara joo xam ne bokk na ci daara yi soxna maam Isa Mbàkke alu Kafe taxawal mu mel ni kii mu nekk loo xam ne itam lu am solo la kon daara jaa ngi nii di leen xaar soxla nañ dund. soxla nañ ku fay courant bi soxla nañ ku fay ndox mi soxla nañ ay mat la soxla nañ lépp lu nit di soxla rek daara ji soxla nañ ko ndax ay doomu aadama ñoo fi nekk te itam dañ leen téye ci daara ji di leen jàngal yi nga xam ne moom moo di alquran mu mel ni kii comme ni ngeen ko daan defee rek ñu ngi leen di xaar bu baax baax a baax rawatina waa euh, Amérique euh, rawatina itam waa Canada macha allah ñoom tamit ay jàmbaar lañ soxna Fatima ñi ngi lay xaar nañ la daan xaaree rek ci daara yi nga jaar fa nga daan jaar rek macha allah papa Saddex Amar yow it ñu ngi lay lay xaar sëñ ma jama soxna billoo ñoo ñëpp ñu ngi leen di xaar daal ci daara ji kon gis ngeen ko noonu soxna maam isa mbàkke kenn la ci ñun euh, soxna maam isa këhlu kafe kenn la ci ñun ndax fu ngeen ñu gis rek gis ko fa luñ nekk itam dugal ko ci lu mu nekk itam ñu dugg ca ndax day kenn ci ñun di suñu idol di suñu royuwaay ba tax na saa su nekk rek dañ koy bëgg di jege kon ñu ak moom rek ba biir àjjana incha allahu rabbi kon mbokk yi ñu ngi leen di sant euh, euh, a baax kaddu daara yi mu mel ni ki ñu ngi leen di xaar rek numéro yi nga xam ne mooy daw ci suuf nag mooy numéro daara ji képp ku ci jaar rek lépp lu ci waay joxe rek incha allahu rabbi di nga ko gis ci àdduna waaye itam fayam ma lay xaar ci àllaaxira comme niñ ko daan defee rek kon mbokk yi sant nañ bu baax di leen jaajëfal di jaajëfal sëñ góora Diallo moom lañ àndool ci wàllu caméra bi moom tamit ñu ngi koy massawu coona ndax démb ba léegi ñoog moom rek ci daara yi macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ñaan yàlla fay ko ñaan li nga xam ne moom lay sàkku ci télévision ma faatihul Bichri mu di ngërëma sëñ Touba yàlla na ko yàlla defal kon mbokk yi sant nañ leen bu baax a baax di leen jox dig daje ci beneen émission kàddu daara yi wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu